Bienvenue sur Salam Vision. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارة لهور دندون سقط عند سرسارة لهور bismillahi rahmaan rahim la hawla wala quwwata illa billahi al aziz mbokk internet bi mbokk youtube bi nga xam ne ngeen taxaw di am Salam Vision àddina lu ko wër nuyu nañ ñëpp ziare ñëpp xaalaat ñëpp ñaanal ñëpp jàmm yàlla di borom jàmm ko jàmm nga jàmm yàlla yàlla jàmmal tey nag ñoo ngi fii téete biar am na ko waa xefatul xatim ko fay def ay bernde déggal jàmm waaye nag ay taalibe Cheikhul Xatim tabarakallah bu ñu waxee yóoru muy rek kenn buum la bu ñu xëccoo rek dafay dama doon tabarakallah di ñaanal suñu ko taxaw Mbàkke yàlla yàlla guddal fanam ak allah amru wa ayadu nasara yàlla na ko yàlla jàppale tey nag Salam Vision mi fii ñëw am ak li nga xam ne ñooy waa xeetu xam bi ñu fas nga xam ni ñoom ñoo sos mbir bi ak kañ lañ ak bañ ko dalee sos ba léegi yan tànk lañ ci am am na lépp lu ne am na tànk yokkute wala mu am tànk ginnaaw ñun Ablaye Abdoulaye Balde mi nga xam ne bokk na ci ñoom ñu ñu initié affaire bi kon Abdoulaye ñoo ngi lay nuyu. salaamaaleykum. auzu billaahi mina saytaani rajiim. bismillaahi rahmaani rahiim. di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. waaw di sant yàlla nag. di sant yàlla bu baax a baax waaw koor gi nag fukki lu bismillahi bi ak alhamdulillahi rabbil alamin di baalu àq waa koñ bi nag ñu bëgg a xam rek eh, Ablaye lii dafay doog a am wala di ko di tàmbalee ba léegi weeru koor bi yéen ci parce que gars yi dañ ko woon fekk kafe rek dañ ko woon fekk kafe rek. bu mel ni bi koor gi tàmbale eh, ko yaatal rek wala tey ngeen koy doog a def. waaw ah, maanaam tey moom dañ ko gën a yaatal. mais yàgg nañ ko def mais tey moom dañ ko gën a yaatal. Euh, daayira bi kan lay doxee nga xam la rek wala at bi yëpp yéen a ngi woote ñu ngi boo xam ne da ngeen dajale ko jàng waxtaanee mag ñi joxe addiya comme yoonu murid nga xamee wala yéen ab at la rek ngeen koy ay nit am na daayira yoo xam ne ñoom daayira at la ba xam ndax boobu te bii kii la bokk wala déet. daayira bi moom du at ba at parce que sax àllal bal dañ daan def daayira mais feebar bi moo ñu xawoon ne sax àllal ba daan nañ def sax yaakaar naa dafa xaw a taxaw waaye feebar bi moo leen tëj waaye bu mel ni feebar yi bàyyi woon nañ ko fi ay jamono ah ci diggante la bi dañee boobu ba léegi ñu ngi waxtaan waxtaan waaw daayira moom lan ma comme daayira yi ci mbedd yi la wala daayira bi am na vision yoo xam ne bi koy xalaat ci bu bañ a nekk ak ubum tamit am naa waxulu a saxaar am yoo xam ne dañuy ànd nii rek mais seen xol yi yéenati wuñu saam nga xam ndax yéen ñu ko yëg ci daayira bi wala yëgatu ko ci daayira bi moom maanaam ñëpp benn la parce que daayira bi ñi ko sas moom kilifa la eh, dam koy sas jiitu ko di tudd daayira bi Serigne Saliou moo ko sax jubbool ko jubbool ko xidmatul xadim waaw xam nga baatu xidmatul xadim boobu sax bu gën nañ ci yow dañu bëgg xaar tuuti ci kanam mais dañu bëgg xam ni xam nga léegi détails yi lu bokk doo nekk doog ci buur rek waaye xol li duñu duñu laajate ba xam na daayira bi dafay nekk xam ni dafa pare wala yéen a ngi dimbali seen biir ndax social bi am na ci wala déet daayira bi moom wax dëgg yàlla macha bu feebar dañ lay jàppale ñu dugaloon Fouta bi mais maanaam def na groupe WhatsApp lu waay nekk rek dinañ ci am na ñu nekk ci Europe dañuy dégganteeg a ñu nekk ba feneen it dañuy dégganteeg ñoom. bu ñu déggee daayira bi am na social nekkul ñëw rek dajale ko jàng xasida bu ñu paree wax jërëjëf Serigne Touba def mais am na social ñoo ngi mën na seen biir nit ku feebaree ñu assisté ko ba xam loolu da ngeen di bàyyi ba am nit feebar ngeen koy katal wala nga am stress yoo xam ne si ngeen di na am nañ stress boo xam ne. mën nañ ne waat nañ deux ans yoo xam ne dañ ko bëgg a yóbbu mënaguñ ko yóbbu parce que feebar bee taxoon mais chaque bi moom macha allah parce que ñaari at a ngi nii yóbbu ñu moo tax ma ne social bi moom dañ ci dimbali ñu bari. xëy na xam ndax yéen bu nit feebaree wala mu soxla da ko wala da ngeen di ci kees gi rek xajal ko ci. waaw di leen ci kees gi ko mais kees bi boo gisee koy saako. a bu benn nit rek moo jël alala seet si seet bi dinañ ne dara def na ci laay def na ci moo tax maanaam dañ ciy jubbu doole waale ko seet bi. ndax ñun bokk na ci gaay yooyu nga xam ni toujours dañuy laaj rek mais duñu préparé bu xam ba xam ndax jotaay bi tey mooy ndawal yi ñu fi gisul lekk yeeg naan yeeg ba xam ndax ñun seen moyen bopp la wala da ngeen a làq ci ginnaaw politicien. loolu mu jaamu yàlla yi parce que comme bi bu ma nee murit rek a fi Murid mu ngi fi Xaadir mu ngi fi Laayeen mu ngi fi Jaago mu ngi fi ñëpp dañoo déggoo ñëpp dañoo déggoo moo tax ñoom seen ñett yi ñu dugal ci kull bi ñun loolu lañ leen di dollee mel ni sax boole ak jamaatu maa rahma waaye am na ñoo xam ne seen jotaayu mel ni ci ay productions lañ koy wut bu fekkee da ngay dem laaj productions yi productions yi mën ci dugal seen loxo bu ñu mën leen tudd dafa doon xam ndax yéen ci ñooñu ngeen bokk wala bokk yàlla xam na ne ñun bokkuñu ci ñoom ñun lu ñuy def rek dañ koy commencé suñu bopp parce que li tax dañ koy commencé suñu bopp maanaam pour ci fekk rek naaw ñu amul benn politicien bu fi taxaw wala ñun ñu def ci benn politicien nan la dimbali ñu ci lii wala ci lii dimbal lii nag da ciy fekk loxo boloo na. bu nga déggee mooy xidmatul xaadim bi leen maam Serigne Saliou tuddee xidmatul xaadim boobu lan nga jàpp ci loolu mooy liggéeyu Serigne Touba liggéeyal Serigne Touba jamono ji ku ko deful daanaka mën naa ne da ngay perte liggéeyal Serigne Touba kudra liggéeyal Serigne Touba nit ku koy def di ko wët di ci yokk di nga xam yow yow yaay ci tey suñ ko defee tey moom mooy borom moom mooy borom yoon bi wax naa ko léegi léegi ñu ne benn buum la bu ñu xëppee ñëpp ay dawandoo te ñu ngi teewaal leen xidmatul xaadim ki xam ne dañuy liggéeyal yoonu Serigne Touba Serigne Touba kere bu muy liggéeyal yàlla dafa liggéeyal di ko leen Seydina Muhammad te ñu ci mooy liggéeyal yàlla liggéeyal yonent bi Serigne Touba nee na ab taalibeem del jaamu yàlla boo ko mënul deel liggéeyal Sëriñ Tuuba boo ko mënul sax koom-koom dee ko joxe boo ko mënul deel liggéey boo ko mënul maandoo kon il la déggee war a fay ñu ne ci weeru koor yi nekk ci ku nekk weeru koor xam ne weer yi Seydina Muhammad wax moo ci nekk isa halal hilaalu saa al arsh wal kursi wa sawa arda tuuba li ummati Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba pare lu tax yéen eh, eh, xalaatu leen dara dara dara lu ngeen ni bu nit ñi wooree ba ngoon jot nan leen toggal ay benn jox leen ko ñu lekk war secret ngeen ciyee parce que war secret li ci nekk dafa bari boo gisee ñu naan la orange noonu wala jooni jooni kooku daa mel ne koor gee ko gën a gaaw xool bee ko gën a kaw fuuf te yàggul moo tax dañ ciy félicité gis ko yëpp suñu bopp ci barke Serigne Touba. loolu wax jeunesse bi nga xamante ne ñoo ngi ñoom ci yéen ànd ak yéen mais ñu desee am gëm-gëm bi ngeen amee yéen ñoom ñu dese ko am lan nga leen ban message nga leen di laaj. ñoo xamul secret bi ci nekk rek. mais ku ñu kër bu baax aajo bu am secret bi la maam Serap Nafal di jaay dootoo am jot ci dara loolu man maa ko gis barke Serigne Touba dootoo am jot ci dara dara dara. su dee xanaa. di jaay wallaahi. wala leeral nga ñëwal ñu tuuti nga xam sax am na nit boo yëgee tamit da ngay wax ñi ne ñu ngi bu ko ñëw ñu mën a ñëw. fekk yàlla yi ñu lekk ba suur boo ko xamoon boo jëndee orange moo ne sax di laajte ba xam am na promo. loolu maa la ko ji an tabarakallah ñoo ko déggandoo woon ñu nekkoon Ablaye Balde mi nga xam ni ñu weeru koor bu ba léegi gis ngeen ko wër ko léegi mais ko léegi dañ ci dégg lu ne diggante dégg mu ne mais da ngay tànkam lu rek parce que boo liggéeyal yàlla di liggéeyal yonent bi di liggéeyal Sëriñ Tuuba di liggéeyal Maam Seex Ibra Faal da ngay tànkam lu rek laaj benn laaj ba xam ndax ñi lay di nga digal léegi wala nga xoolee ndax yow naw nga ne wala nawoo leen te këll gi jëmewuñ ko fee di jëy jox yëpp dañu koom mooy ñoom joxewaat. laaj bu ñu xamoon dëgg-dëgg sax ñaar fukk su ma la gisee su ma la xeluloo café wala joxuma la ma lekk damay ruus man damay ruus man Balde man Barth Serigne Touba damay damay ruus parce que laaj. laaj metti na de mais joxe ku gën a metti laaj a gën a metti de joxe ku gën a metti doo laaj boo gën a metti parce que sax doo laaj mais kii joxe est-ce que xam nga ne ba sam laaj pour boobu la yor wala yoru ko waaw li nag ah, yàlla waxoon moo ci nekk mais nag ku bëgg lekk barale da ngay joxe ku bëgg ku bëgg a jëriñu am na la bu rëx ak te toujours tax a gën moo tax mu ne la joxe ko gën a metti am na ñu lay jox joxi géej bi am na ñu lay jox joxi géej bi jaraat donc kon ñu ngi woon ci Ablaye Baldé Salam Vision fas yéene jëf ki nga xam ne moom mooy ñoori bi di Ablaye ak ki nga xam ne mooy Médou ak suñu yaay ji sama yaay buri siyaare leen ñaare leen yàlla yàlla taxawal leen yàlla yàlla dëgëral leen après ñu jël waa daayira Xidmatul Xadim yëpp laay bal na sa dernier message ak lan nga war a wax waa Xidmatul Xadim waaw di siyaare waa koñ bi nag surtout waa Paax boo déggee ma naan la di siyaare waa koñ bi surtout waa Paax bi yara fii maa fi gën a doon xale mais mais waxuñu ma dara dañ ma jiital ci lépp lu ma def ñu ne baaxul lu ma xalaat ñu ne baaxul moo tax Baye Fall yi kenn mënu leen fay ay baay Fall tuuti ñoo fi nekk Baye Fall tuuti ñoo nekk ci suuf di sant suñu yaay booy yi nag yaay booy yu baax lañ takk nañ seen liggéey koor nam mettee rawatina nga nekk ci tulli ah, rawatina matt ñii kenn amul seen fay di leen sant di leen gërëm di leen baalu àq di leen ñaan yàlla wàcc leen sañu kanam yàlla ka leen fi ñu woori woori woori woor ba dayal yàlla fekk amin waay amin amin kon tabarakallahu ñu ngi fi ak euh, Salam Vision ci Pàcc la bay ànd ak waa daayira ay ndogu defar ay yàlla yu woor yi bu naam ñaari baat yi ñu waaw Assane yaay buur waaw. waaw taxaw comme ni ko waxee woon léegi rek léegi léegi la ñuy wax Ablaye Balde mi nga xam ne bokk na ci ñi initié yi nii tey dina ci weeru koor weer bu teg di weer wu sell di weer wu wax waaye daay xëcc bu xat bi ak Serigne Touba aussi def ay benn nga xool jullit yàlla ñi woor aussi ne leen ko defee bu seen dogu mais ni kon tabaarakallahu ñu toog ak suñu baaxee ñu toog di Pape Lo di ko ziare di ko baala ak ñi nga xam ne fa daal waaye ci pàcc bi lañ nekk waaye li ma gën a yéeg fii ñoom xam ne murit dox ak ñi tijaan dox am na xaatu dox am na laaj même les chrétiens sax dañu leen di dikk pour liggéeylu kon ginnaaw bu leen dee pare dafa war a toog suñu laaj boobu aleykum wa rahmatulah ñu delloo ziar bu wér kenn baalu àq di leen baal àq ñu yàlla boole jéggal ñu ko waxee rek euh, noonu la tudd fii bu ñu yàlla boolee ci nekk ci carte bi ba waaj egg mën naa wax ni yàgg na man quatre-vingt-douze laa fi ñëwoon ci carte bi ba léegi waaye yàlla dafa dogal ñu bokk ay bokkukaay manoo xam ne tijaan manoo xam ne murit ñuy wax ak yow tijaan laa teewul ñu ñu jiite nit ci kanamu xale yi ba jiite leen boobu ba léegi nekk seen kanam yore bi yore lépp incha allah foofu wala ñu tax liggéey rek la jaamu yàlla lépp loo xam ne ñu ngi koy yaakaar ñu ko defee ngërëmul yàlla ak ngërëmul suñ Tuubaa tey ñu ngi boobu ba léegi heure bi teroo ba ñu wax dëgg yàlla kàrt la bu wér a wér a wér ndax boole fi ñu am na nekk benn ñu ànd ak jigéen ñi ànd ak xale yi mag ndaw ñi ñëpp takku ba bis bi tey bii ñu war a bokk jox nit ñi ñu jaamu yàlla yi ñu dogu ah loolu loolu nag xëy na yàlla lu yaakaar amuñu yàlla ñu ngi rafetlu lépp ñu ngi ñaanal ñëpp xale yi yàlla may leen ci fan bu ay wér wér la yàlla dolli leen sutura yàlla may leen xéwal yi ñu wër ci dara yàlla nañ ci jot a muurloo waaw mën nga ko jëlee pour tàngaat nga wàññi ko loolu pour gars yi ñoo ko fii mais yii pour muy dem yii dem ko waaw mu tàngaat quoi. loolu moom ay sant ñun yëpp gërëm nañu te ñu lay sant ndax doo ko baax doo ko am solo la ñu xool fii ci bàcc bi ñu woo la nga ñëw wax ci sax laaj yu rafet ndax ay ndam ndam yi liggéey liggéey bi loolu rafet incha allah loolu dañu ko def ñëpp kon kon ñoo lim ñëpp ay jërëjëf. kon tabarakallahu ñoo woon ak ki nga xam ne mooy Macky di président bi waaye gisal xale yi boobu ba léegi ànd ak ñoom ci liggéeyu Serigne Touba bi waaye ànd ak ñoom ci liggéeyu yàlla. su mel ni kon ndogo yi daanaka léegi ñu teg ko mais il bëggoon xam rek euh, lan mooy seen sécurité yi fàttali lan mooy sécurité bi. bokk bëgg-bëgg bokk ñoo bokk li liggéey um ko lool nag macha allah bokk ndey bokk baay parce que ministre boo ci bërëb comme la ngay def ña fa nekk ñëpp ngeen àndandoo ko tëm ko yaakaar naa ne fekk bu baax la loolu muy enseigné la nit rek xale yi ak mag yi ci la sax ñu nit leen di fekk bu baax a baax di jàppale ci kaw ak ci suuf ñu ngi leen di jàppale xale yi bëgg ñu def dara nag parce que mu ngi loolu lu ñu liggéey kaaf yàq loolu rek ñu ngi nekk nekk wu ci leen yi. tabarakallahu ñoo ko dégg boo noonu ñaanal ko rek yàlla yàlla dolli taxawu ko yàlla yàlla dolli dëgëral ko yàlla yàlla dolli sàmm ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. te ba léegi génn ko ñu ànd ak waa Xidmatul Xadim Xidmatul Xadim nag boo ko déggee mooy liggéeyal Serigne Touba kan mooy Serigne Touba mooy Baye Serigne Saliou wax nañ ne daayira bi Serigne Saliou moo ko bind moo leen ko tuddee ci la xam su bëgg a xam rek kañ la loolu ak nan la ak na mu naka mu demee إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من الحماسة الشياطين وأعوذ بك رب أن تحشرون أكثر الحقين تفجرت أن أعوذ بك من الوعي أكثر الحقين وأعوذ بك رب أن تحشرون أكثر الحقين pour ma xamkat bi nag émission boobu ñu ko tuddee ñu ngi doon ay gën yu ndaw buñ ko nattee ñu ngi doon am mille neuf cent vingt-neuf doon ay question Serigne Saliou moo ko tudd ci loxol ko suñ ñu siyaar ko ko ñu ne da ngeen di mbooloo maanaam tuddee mbooloo nit ñi ñu liggéey seexul xasim ñu seet na ñu boobu ñu ko Serigne Saliou Mbacke tuddee ci Mouhadim Rassoul lu sax lu ma ni sax moom lu ma xam ne suur yu bare waaye dafa mel ni dafa am lu mu yëg ci yéen am ngeen ay ndaw ngeen mais ñam ma ñam ñam basira yàlla leen may ñu am su am gis-gis nga xam lu ñëwagul wante alxuraan mi wax naan inna wala taqulu si indi faay ay boobu du ñëpp ñoo koy ak woo dafa am yoo da koy yàlla da koy jagle doomu aadama mu li tax mu jëlee xamatu xat bi

dañu euh, ci góorgóorlu ak ëllëg dañ taxaw ci la ñuy dox ndax liggéey sëriñ bi booloo booloo suñuy ñax ko def muy benn di ko yàlla tax nekk ci gox bi nag jël xitma yaatoo ko ak foo mën a bokk wër bi boo mën a jël xidmatul xadim pare na trop ànd ak yow te mu ngi ànd ak yow man waa xidmatul xadim noonu la ñuy doxee ndax xitma moom mbooloo la xam ni maam naa gën sëriñ Tuubaa du pour tariqa ah. loolu lu leer la buñ ko tënkee ci irhamtani alwara ku woote tariqa du ko wax sëriñ Tuubaa moo wax loolu sëriñ Tuubaa moo ne zimaamul wara antari rabal lay fi yëpp yëpp kon ku woote tariqa du defee noonu sëriñ Tuubaa woote tariqa sëriñ Tuubaa ñaruñu mbindeef yi

taalibe Sëñ Tuubaa na nga fonk alxuraan taalibe Sëñ a na nga fonk liggéey Sëñ Tuubaa yi taalibe Sëñ Tuubaa na nga nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla na nga fonk say waajur loolu mooy taalibe a Tuubaa taalibe Sëñ Tuubaa mooy diine diine li ñuy wax diine mooy taalibe Sëñ Tuubaa taalibe Sëñ Tuubaa day dox diine kese mënul diine taalibe Sëñ Tuubaa wax ak jëfam ñun noonu la ñuy def sëriñ bi ndax sëriñ Tuubaa a ne lii noonu Mustafa nawaytu maa kon ku am ku mel noonu ak moom fu ko yàlla teg indi ko wër boobu kon képp ku roy ci moom nga war ngay ab war ngaa roy ci ko wër boobu te nit ñi dox day naa jëm yeesalaat sosol moom nee na far ay suñu borom man ci la ne mais lu mu ci mën a mën koy génn suñ tubaab yàlla dogal mais mën na lépp wala ay naa suñ tubaab du ku yàlla di topp dara fekk nag yàlla bu doon def lii wala lu tax defoo lii kooku suñ tubaab mel ni ko amee ñu nga fexee bu dox ci sunna faratay suñ borom yi bu la ci benn rek sunna moom la a ko ci góorgóorlu daayira bi yéen bu daayira bi rek dañ ñëw dañ ci amee daje dañuy jëkk sàkku mooy bon élève mënuñoo am li mu kaamil bu dëgër mënu gàtt gàtt naa am ñetti kaamil alxuraan bu ñu ko wàccee ndaje moom su ma sa def waaye yomb daayira bu am rek di taxawal alxuraan te koor kii saxawoon nañ ne weeru koor wu jot donte ñaari kaamil wala ñetti kaamil bu ñu ko wàccee ci daayira ndax Sëñ Tuubaa moo ne qiraatu wa alfi wa jaa'i wa ifati wa min tubiaat aw nii la dam laay zaasi daxi kooku mën a dox alquran wallahi la am si mu ne mosuma ko def waaye yombul waaw ku mel ne Sëñ Tuubaa ci alquran yombul wala Saliou rek te dañuy wax ni moom waaye man man bu ñu jógee am murid Serigne Saliou moo na ko def bu mu duggee pour xam ne ci tànk yi Serigne Touba la dox dafa mu toll ni fukki daara ak juróom-ñeent la Serigne Saliou taxawal jàpp ndal xabbaan mbooka lagan burum jannatul mahwa usnal maha daaray ñaaru daaru salaam alimul abdin daaru minnam kooku Serigne Salim Mbacké donc taxawal bàyyi Serigne Moustapha Serigne Sias ay doomam sax ci tànk yooyu lañ tëgguwaat kon nga xam ne Serigne Salim Mbacké ku Serigne Touba tegoon alxuraan fa la ko def ndaw ñi bari na mu alxuraan daaray Serigne Salim kon loolu aw feex mënu ko weesu waaye lépp day sëñ Tuubaa ndax comme day ñu wax rek dara du organise rek boo ko boo ko indee rek mooy sëñ Tuubaa mooy alxuraan wal xalqu kat boobu nii wal bahru sa nafsan bila tarabun kon faaw ñu topp sëñ Tuubaa ndax njëriñ lu amul loraange damay njëriñ donc faaw ñu koy topp wallahi al azim wallahu yansuru nii wal xalqu أنبئني في البحر والبحر كان نفس بلا قريب suñ tubaab moo wax loolu kon damay njëriñ loo xam ne aw ma dalaay woo kon ku mel noonu xaw ku nit mën a bokk dina ñëw ci yow jàpp naa ne jàmm ñëpp dañoo bokk njëriñ moo tax Serigne Touba comme ni nga wax rek woote wut leen Serigne Touba am na mari bu leex la wax ñëpp na ma dem ci yàlla ci Serigne Touba nga bokk rabbi wal murid naa fi yàlla waa suuf ay ah ulusulaay boobu ñu aar dina kenn sax du baax sax dara mooy bañ a toll dimanche waaw ndax mooy koo xam ne ci suñ tubaab dañuy waxtaan suñ tubaab man it ma rek laay bëgg footoo ma bëgg footoo wax ak dootu ma mën a def waaw loolu yàlla def na ko ci man كما قال الله جميعا او الاحياء جميعا اقول كيف قال قال waaw sëñ Tuba ci loolu la kon jaamu yàlla booy wax ak murid moo tax bu xamut bu wax ak murid bu jaamu yàlla wala mu naan ba càrku mu yàlla wala mu yokk ay dañuy bokkaale dañuy def dañoo ñàkk xam-xam ak soxna na Ahmadu Bamba wala jànguñu alxuraan am na ñoo xam ne jàng nañu alxuraan dañoo mokkal alxuraan walaay laa bëgg bëgguñu waaw mën ngeen boole kaaw mën ngeen doon kaaw mën ngeen doon xam alxuraan du mu ah, dégg ndax Sëñ Tuubaa boo xamee alxuraan dara jëlee seexuna mu tombe ku Sëñ Tuubaa woote da nga lii daray alxuraan jëlee ñu ne te waaye suñ suñu ji kenn du Sëñ Tuubaa parce que seexuna Ahmadu Bamba ku nekk xam-xam rek wala nga wala sa biir bu wala ñu gis daal di tubaay bi def dara xanaa dañuy yàq wala dañoo nekk ci réew mi ci ci jaamu yàlla la ñu def Seexuna moo baax ñun suñu tubaay bi loolu la ñu tudd joxe ñam togg ko ba mu nag xool joxe ko te ci ñam lu toll ni taratal ay li ñuy wax arab yi dañ naan xaalis ci xol la sax waaye ñun suñu tubaay lañ saxal suñu xol yi indi xaalis tegee nee bëgg a def ngir suñu tubaay Seexuna Ahmadou Bamba ñun ci loolu la ñuy dox. asdara kontaan naa bu baax a baax jërëjëf sama xol seet na bu baax waaw message bi may jox waa xidma ko xam bi mooy ndaw mi waaw oustaz ndaw ñi li leen jox mooy ñu gën a góorgóorluwaat nga xam ne liggéey bi Tuubaa tàmbali la am waaye amagoon waay ndax nit ñi ko jaamu yàlla boo ci nekkee am na tàmbali waaye amagoon waay kon li ma leen di digal mooy ñu fonk waxtu juróom fonk suñuy waajur lii la sëñ Tuubaa tudd ay jàngal xuraan te jéem a bés bu tuddee sëñ Tuubaa ñaari xasaayid la nga xëy di ko ak loolu ndaw bu nekk boo liggéey sëñ Tuubaa naa defee noonu sëñ Tuubaa du la sëñ Tuubaa du phénomène sëñ comme que mooy solution bi chaque jour ñu war nañoo def ci li nga xamante lu yàlla gërëm kër gi gërëm ko. ndax dara bu loolu weesoo ñu xool seen nañ la lay ñaanal ak sa groupe bi ngeen àndal suñu borom defal leen aw feex ak ay siin ci barakatu Seexuna Ahmadu Bamba barke yàqir la ko bii ba suuf war ko rek pour mu maye si kawam ay sara sëriñ bi am na ko mën na ko yàlla na ko defal ko ak suuf borom. am na yàlla yàlla nangu jaahi sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. tabarakallahu jërëjëf comme si dafa yàlla nag suñu yaay yi ñi nga xam ne yow yaay xale yi waa xam nga du xam ne liggéey Serigne Touba bu yoxe kan mooy Serigne Touba ñu ngi may bàyyi Serigne Saliou kan mooy Serigne Touba ñu ngi may bàyyi borom ak borom alamin en may firi waajur may borom xaade xaafisul xaahir jalla maane am en may firi waajur may borom wallaahi yan firi nii waxu tablaay ni suñ barni wal bahri zaadal ibrahim tey nag ñu ne fii nag ay ndaw ay ndaw yu yàlla dimbale waxtu yàlla namu te dimbale doo nangul góor yàlla ay ndaw yu yàlla namu dimbale fas yéene jël seen doole seen am-am seen kàttan seen alal fas yéene ko joxaat jaamu yàlla yi ñu nekkoon nag seen yaay yi ku soxna yaay bëri ànd koog soxna Gueye di nuyu suñu yaay bëri mu nuyu mbokk internet bi waaye du mbokk àdduna. alhamdulilah rabbil alamin naa bu sant yàlla jub ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama sang ci Tuuba ñoo ngi sant yàlla ci sama borom Tuuba Mbàkke naa jërëjëf seen Tuuba jërëjëf seen Tuuba jërëjëf seen Tuuba maa ngi sant yàlla nag di sant mag ñi di jiitu woon ci xidmatul xadim bi ndax daayira xidmatul ay mag ñoo ko yoroon ëpp ñaar fukki at ci gannaaw ñi yor ko di ko doxal yóbbu daayira sëñ Saalu Mbàkke yóbbu daayira di ko yóbbu rek ba ñu toog tey jii di di taxaw bu di ko yóbbu daayira xale yi nag macha allah nekk nii dañuy pour ñu def ne am sëñ Saliou Mbacke mooy ko juddoo woon muy daayira ak mu xat yi ñu ko sa bàyyi muy fay xale yi jëf seen tànk teg ko bu la te fii ngeen liggéey sëñ Touba nekk la ci ay gerte dinañ cee dëgër seen bopp dinañ ak Baay Faal kon ñoo ngi leen di ñaan yàlla yàlla yàlla dina seen fan yàggal seen taxawaay yàggal yàlla naa ko béy béy xam ni. may sant ak jaww ji fi nekk yëpp di jël gerte gi rek di ko teg ci loxo jawrin Mamadou Sow keneen Mamadou Sow passé yàggal yàggalal suñu kanam kontaan nañu ci yéen daal ngeen suñu kanam macha allah wax dëgg yàlla mbir mi daal jaar na yoon ñoo ngi sant yàlla ko santaat di sant yàlla ko santaat di sant ñëpp wasalaam. kooku mooy suñu yaay buri moo ne ci waaj wi mooy togg affaire yi ak suñu yenn ak suñu yeneen yaay yi di laaj tamit soxna Gueye nan la gisee mbir mi ak nan la dundee baay rek. ah maa ngi ziar ñëpp. di ñaan sëñ Moustapha sëñ Moustapha bu Tuure di ñaan yàlla suñu borom bi yàggal ko fi loolu Mbàkke suñu wër ndax li dund doy daayira bii sëñ Saliou Mbàkke moo ñu ko tudde woon bi Xidmatul Xadim am ñu tuddee daayira bi dëkk sant boobu ba léegi daayira bi yokkute rek lañ ci gis xale yi nag doon ndaw yoo xam ne dañuy liggéey yàlla yoon tudde Sëriñ Tuuba ndax liggéey jaamu yàlla rek moo leen yor te Sëriñ Tuuba liggéey jaamu yàlla la digle xale yi li ñuy tuuti tuuti bu ñu xëyee su dee seen yaay ñoo ngi di liggéey ba ngoon ci yelu seen bukat di jaay fekk ñu ne cay man soxna ngay nag ma leen ñaanal ñoom ñii di ko jaayante ànd ko ñun ñii di seen yaay yàlla nañ dund ba bokk ci multimilliardaire yi seen Bamba yi ndax xam naa ne xale yi ko liggéey ndax dinañ def weeru koor dinañ def safar dinañ def ay kees su kon nag dañuy ñaan yàlla yàlla bàyyi ñu da nga wax ñaari ndax ñoo ngi dimbale ñoo ngi dimbale ñoo feebar wala ñiy am natt wala ñiy am trop alal ci daayira bi wante daayira bi. dañoo boole suñu bopp nekk benn kenn ku ci nekk sa denc wër te sox fekkee sa soxla morom tey xale yi noonu lañ ko doxalee man mii damay xëy si fii ba ngoon jot bu ba ñibbi ginnaaw yàlla yonent bi Sëriñ Tuubaa ñoo ma bàyyi ci pàkk bi ñoo may papier samay bagage ñoo ma fay liggéeyal ñoo may jox xéewal ma yóbbu sama kon nag dama leen ñaanal yàlla leen yàlla yokk de Sëriñ Tuubaa yokk bu déwénee yàlla na ñu yokk ba yeewaat seen i jiwéer ak seen i ndax te Sëriñ Tuubaa man na ko benn yoon rek. dégg nañ la léegi ah ñenn ñi dañuy dañuy ñenn ñi dañuy dañuy dañuy copier ñenn ñi dañuy ñenn ñi dañuy dañuy dañuy dañuy jaay seen i mbokk lépp bu bëgg liggéeyal Sëriñ Tuubaa waaw kon tabaarakallahu yàlla yàlla yàlla yàlla taxaw leen yàlla sàmm leen léegi lan ngay ma lan ngay ma leen di lenn dong moom la digle ngi ci biir ndaw ñi teg seen tànk buñ ko teggi bu ñu teggiwul seen tànk rek bu soob yàlla yom tamit Serigne Touba lépp lu ñu ngërëma Serigne Touba Cheikh Rafal dinañ am kon Serigne rek la ñu wax waaw baax na joo gis am na Cheikh te ñoom dañuy dund Serigne Touba di dund Cheikh Rafal leen di ñaanal yàlla nañ ko teewe ay déwén yu bari di jégalu nag suñu mbokk yi ay faal yii nga xamante ni bii wut si liggéey yooyu ñëpp dañuy takku ñëw ci liggéey bi ñëw ci liggéey bi may ñaanal ñëpp di baal ñëpp ak di baal ñëpp ak baal suñu fàll. am tabarakallahu ñu ngi woon fii nii disons ànd ak tabarakallahu waa xidmatul xaddim fas yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa tey ñoo woote woon fii ndogu woo seen mbokk jullit yëpp ak li ma gën a yéen ci ñoom boo xamee murit boo xamee tijaan boo xamee chrétien même les chrétiens dañ leen koy fekk liggéey te boo waxee ñu la ban sëñ Bamba nga commencé a faal kon fa tabaarakallaahu yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla dëgëral leen yal yàlla wattu leen ba fee ay berne nag wax ko buntu yàlla yi mbokk internet bi mbokk youtube bi Salam Vision tey fii la ñëwoon ànd ak waa Xidmatul Xaadim ànd ak seen ndogali wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ku ma gën ngir taxu laa kon ngir Mamadu Lamin mooy sama gën Mustafa ma gën te bëggu ma gën ngir gudul Mustafa ci ma gën man ku ma gën ngir taxu laa kon ngir Mamadu Lamin mooy sama gën Mustafa ma geneen te bëgguma geneen géej gu dul Mustafaa ci geneen géej gu la may su la mere waxati la ko wala mu xoole na ko Mustafaa aw ma geneen géej te bëgguma geneen géej gu dul Mustafaa ci geneen géer gu la may su la mere wax la ko wala mu xoole la ko saba ama geneen géer te bëgguma geneen géer gu dul mustawa ci seet naa ko seet mustawa ma doy géer du man de moo ma doy géer man dama lay way ba dee man dama la way ba dee laay laa bëti laay bëti laay bëti laay yàlla laay laay la laay Muhammadu Rasulullah man dama lay way ba dee جلت صعبة رسول بدلا بدلا بدلا صفا من لمن لمن يعني سيدنا محمد ندم بيت لا يا لا لا لا لا nanu àndandoo ba ca bayti laay wajal na madina man de li may ñaan li may ñaan Seydina Muhammad nu dem bayti laay nanu àndandoo nanu àndandoo ba ca bayti laay wajal na madina man de li may ñaan li may ñaan jalla jalaalu laay yàlla nu àndandoo àndandoo ba jëfee ci laay dafa timit dina man li may ñaan li may ñaan jale jalaloo ñu dem bay ci laay naanoo ñu dem bay ci laay karfabul malaykatu ilaa tuuba ilaa tuuba ilaa tuuba sabaaman li may ñaan ima ñaan jal jaraanoo ñu dem bay ci laay malaikatu ila tuba ila tuba ila tuba saba man li ma ñaan jàll jàlloo ñu dem doy ci laay tarfaul malaikatu ila tuba ila tuba ila tuba Moustapha man de ma bëgg doon géwal yoneen la may doon di tagg la may doon gi di way di kari rasulallah di sargal Sëriñ Fallu abaa man li may doon laay lii ma bëgg a doon gi wal ka nen la may doon tagg di way di kañ rasulallah di sargal Sëriñ Fallu bëgg a doon géwël yoneen la may jara way jara kañ jara tagg Moustapha Moustapha ay génn góor Moustapha man li may ilaahi lii ma bëgg a doon géwël yoneen la may doon tagg di way di kañ rasulallah di sargal sëriñ Fallu saba man li man ilaahi lii ma bëgg a doon géwal yonen la may ku ci aw lii yàlla na nga siyaare ji Muhammadu Lamin ma ca ba ci laay saba man li man jalla jalaalu ñu dem bayti laay tarfa ul malaikatu ila tuuba ila tuuba ila tuuba la la la ilaa Touba. Mbakke. ilaa Touba. Mbakke. ilaa Touba. Mbakke. ilaa Touba. ilaa Touba. tarfa u malaikata sallallahu alayhi wa sallam maa aminul waay ay makkata bunte jotiwul te néegi Tuuba kay soriwul ko makka si yaa ngi nu am sa yërmande sëriñ bi noo lay dagaan te di di la ñaan ka ñaan ko gis defal ko yërmande te di la yalwaan ka jooy su lari xol babal ni wooy gi raji yaakaar bi bañ a sooy tabe nga boole ko yërmande te di la sukkal ne jigéen te di la raamal di la foon te di la sopp di la miin ngir bëgg a am sa yërmande te di la tuubal lu araam ngir yàlla tey nu rooti jaam noo ngi waa fi yow di sa fi mbaam di sa fi mbaam ba di nu sëw sa yërmande te di la yalwaana ka jooy nu la ruxal ba faw ni wooy yaa di yaakaar di bañ a sooy tabe nga boole ki yërmande te koo woo mu dal di ñëw amaana sax mu sax yow te loo ko wax mu dal daw ngir bëgg a am sa yërmande yow la nu dem ngay sunu baay di sunu yaay di sunu maam di sunu waay di sunu najaay di sunu ngëm gi yërmande te booti woo mu dal ñëw amaana sar mu sax fi ko wax mu dal daw ngir bëgg a am sa yërmande sëriñ saaliw sëriñ saaliw mbakke sëriñ saaliw mbakke ba nañu fi nekkoon jàpp yaa gëñi di koon mi nu may kun fa yakkoon gaawe ngir sa yërmande sëriñ bi yarunu yorunu bu ñu réew sëriñ Saaliw yarunu yorunu bu ñu réew ay Mbàkke bun doxitam di wërim réew te nu sax ci loo wax nu ne waaw ngir bëgga am sa yërmande sëriñ Saaliw Mbàkke te nga xar lu yoon wi ba mu weex ñu di aw te ñu xeex te nu yàgg bu nu deex ba gi gi yërmande te nga fegal nu deegu gaaw ñaaw te nu sax ci loo wax nu ne waaw ngir bëgg am sa yërmande te nga yóbbu nu jannatul ula Sëriñ Saalu yóbbu nu jannatul ula mooy kër ga amul tiis ak balaa te boole no kulal malaa kulal malaa mu wan nu gën gi yërmande sëriñ Saaliw Mbàkke yàlla na nu sax ci yow ba dee sëriñ Saaliw Mbàkke yàlla na nu sax ci yow ba dee ay sëriñ Saaliw nga sax ci nun bañ dee benn ëdër mëtëdë ngir yàlla sa yërmande sëriñ saaliw te nga may nu wërsëg walaal ay mbàkke bandi lo loo mën a laal te nga defal nu kunu laal kunu laal rëccu ngir sa yërmande man de li may ñaan li may ñaan jàlla jàllaloo ñu dem bayti tooy mu nawara mane su la taqal sa muhammadu rasulilaay ku ñante ñaanoo barkem mustafa yàlla du ku jaari yàlla feneen doo fa yàlla rasulallahi sallallahu alayhi wa maa aminul waay ay makkata buñ jotiwul ca néegi Tuuba kay soriwul ko makka tey yaa ngi nu am sa yërmande sëriñ bi noo lay dagaan te di la xaaraan di ñaan yow mi ka ñaan ko gis defal ko yërmande te di la yalwaan ka jooy su nari xol babal ni wooy ngir rajo yaakaar di bañ a sooy tabe nga boole ko yërmande te di la sukkal ne jigéen te di la raamal di la foon te di la sopp di la miin ngir bëgg a am sa yërmande te di la tuubal lu araam ngir yàlla tey nu rooti jaam noo ngi waa fi yow di sa fi mbaam di sa fi mbaam nga di nu sëw sa yërmande te di la yalwaan ak a jooy du la rewal ba faw ni woon yaa di yaakaar di bañ a sooy tabe nga boole ki yërmande te woo mu dal ñëw amaana sax mu saq yow te loo ko wax mu dal daw ngir bëgg a am sa yërmande yow la nu dem ngay sunu baay di sunu yaay di sunu maam di sunu waay di sunu najaay di sunu ngën gi yërmande te foo woo mu dal ñëw amaana sar mu sax yow ko wax mu dal daw ngir bëgga a am sa yërmande sëriñ saaliw sëriñ saaliw mbakke sëriñ saaliw mbakke ba gaaña fi nekkoon jàpp la yaa gëñi di koon yow mi nu may kun fa yakkoon gaawe nu ngir sa yërmande sëriñ bi yaru nu yoru nu bu ñu sëriñ saalu yaru nu yoru nu bu ñu ay mbakke bun doxitam di wërim réew te nu sax ci loo wax nu ne waaw ngir bëgg a am sa yërmande sëriñ saaliw mbakke te nga xal lu yoon wi ba mu weex ñu di aw te bu ñu xeex te bu nu yàgg bu nu jeex ba gi semee te nga fegal nu deegu gaaw ñaaw te nu sax tu la wax nu ne waaw ngir bëgg am sa yërmande te nga yóbbu nu jannatul ula sëriñ Saalu yóbbu nu jannatul ula mooy kër ga amul tiis ak balaa te boole no kulal malaa kulal malaa mu wan nu gën gi yërmande sëriñ Saaliw Mbàkke yàlla na nu sax ci yow ba dee sëriñ Saaliw Mbàkke yàlla na nu sax ci yow ba dee yaay sëriñ saaliw nga sax nun bañ a dee mel nu ëddër mëtaade ngir yàlla ak sa yërmande sëriñ saaliw te nga may nu wërsëg walaal ay mbàkke bandi loo mën a laal ta nga defal nu gaañu laal ku laal rëccu ko ngir sa yërmande man de li may ñaan li may jala ñu dem bayti laay yàlla nu àndandoo madinatoy munawwara maneesu laa taxal muhammadu rasuulillaahi muhammadu rasuulillaahi ku ñante ñaanoo ci barkeem Mustafa yàlla la may ku jaari yàlla feneen doo wey fa ñaana ñaana ci barke Mustafa wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bismillahi rahmaani rahiim hamdi wa sukri liman kulli bien saara luhuuri dan duuna suqtal inda sarsara luhuur Bienvenue sur Salam Vision